waaw man euh, bon man damay dem ci côté bi ma bi nga xamante ne muy culture bi surtout mm-hmm. je crois que war nañu gën a mën a tàggat tamit euh, ñun suñu suñu suñu avocat yi ci domaine culturel mm-hmm. je crois que parce que si dafa doom nekk domaine bu xaw a spécifique comprendre nga ma par exemple tout ce qui ay droit droit yi nga xamante ne bi moom moo moo ŋànk culture muy musique muy muy muy muy. Euh, danse chant muy danse chant. muy peinture waaw ah, ah dafa am ay droit ay droit yu ci nekk yoo xamante ne bii au niveau international. xam nga am na ñoo xamante ne bii dañ ciy xarañ trop dañ ciy sax spécialisé wu. Mm-hmm. je crois que àdduna bi mu ngi ubbeeku. donc je crois que war nañ ci gën a mën a bàyyi xel pour mun a gën a mun a taxaw parce que secteur la boo xamante ne bii lu bare ngi ci. Mm-hmm. je crois que ñi xam te ne ñooy yëngu ci wàllu yoon war nañ ci gën a mën a bàyyi xel pour seen doomu réew yi nga xam dañuy dem un peu partout dans le monde di signer ay yoo xamante ne bii dafa am ay galgal yuy ci biir comprendre je crois que pour gën leen mën a taxaw ci ci côté ci côté justice quoi en tout cas euh, bu dul dara ñun ay ay ay citoyen lañ. citoyen lañ nga xam ne dañu dëkk ci dëkk bi en bu ñu dindee mbuubam aar mi lépp dañu gis li fi xew. Euh, mu nekk ci année yi lu mu nekk lu regrettable vraiment demoon nañ ba benn am benn fossé bu am diggante par exemple euh, population bi ak justice bi euh, ku ku xool di nga ko gis mm-hmm. vraiment amoon na benn tension bu fi bu fi xew ba nit ñi parfois sax maanaam justice sax maanaam wóolootuñ ko quoi comprendre nga donc ku ku ku waxal dëgg rek xam ne loolu am na fi quoi mm-hmm. je crois que bu ñu jëlee initiative maanaam càmbar ko def ko fóotum biir waxtaanee ko xool li ci bon xam nga ñu dindi ko xool nan lañ koy améliorer je crois que c'est une bonne chose et puis ñu ngi xaar vraiment à ce que vraiment la fay tukkee